énormément un de manipulation dans ce dossier euh, d'autre part euh, ñu jàpp ne que c'est un complot donc complot boobu moo tax peut-être tey jii yenn député taxawee ni ñu taxawee jërëjëf soxna Aïcha d'abord damay gërëm seen TV ndaxte casting bi ngeen def tey yéen gañe ngeen jackpot bi parce que sénégalais yëpp comme coow li bi mu bareeg léegi ñu ngi doon xaar débat bu mel nii pour yëf yi leer parce que nag man jàpp naa ni sénégalais yi duñ ay dof layam layam munu fee am li may njëkk wax rek mooy nañ fexe ba débat bi équilibré parce que man maa ngi wax ci kanamu sénégalais yépp ne du yàqoo ci man dinaa respecter sama temps de parole mm-hmm. nañ fexe rek ba temps de parole yu équilibré ku ci ne nag yaa yore say argument ci sax je pense que d'abord bala may dugg ci loolu dama moo fi dégg loo xam ne il faut ñu leeral li moo fi dégg lu ma bëgg ñu leeral ko d' abord mooy définition bu bees bi moo fi bëgg a dégg ci flagrant délit parce que nag am na ñoo xam ne ñoo defe ne ñoom rek ñoo xam droit mais ñun même bu ñu jàngul droit dañoo am nag ay structures yu ñu bokk te nag suñu niveau intellectuel may nañu ñu mën a déglu nag quand même ay kàngam ci euh, biir magistrature bi ay kàngam ci biir euh, avocat yi surtout avocat yu mag yi mm-hmm. ay kàngam également ci ñi nga xam ñi ngi yëngutu ci mbirum justice flagrant délit définition bi ma fi dégg du définition flagrant délit flagrant délit mooy comme ni nga ko waxee yow ci ñi nga xam ne ñi ngi ci biir justice bi yépp te par parloowuñu waxuñu ci ay intérêt dañu ni flagrant délit mooy loxo ci poche comme ni nga ko waxee maanaam la mais dans le sac au moment des faits te loolu amul ci li nga xam ne moo am nii man nag am na ñoo xam ne su ma leen déggee damay damay damay dute sax ci vraiment niveau intellectuel bi ñu yore d'abord bala ñuy wax ci leneen parce que droit wax dëgg yàlla buñ ko teg foo xam ni fu extraordinaire la lu yomb a comprendre la sur certains aspects parce que du lu compliqué c'est des définitions qui sont claires sur les concepts bu ñu fi joxee kaaw Bougazelli mais Bougazelli dañ ko jàpp en flagrant délit flagrant délit bu leer la dañ koo topp ba téye ko xam ne moom moo ko def te moom weddiwu ko loolu mooy flagrant délit loo xam ne mënoo mënoo mënoo ko weddi dañ la caa fekk tey jii bu fekkonte ne ci cas bi comme ci viol lañ nekk te ci laay profité wax ni man ñëwuma fi pour def la procès moral de Ousmane euh, de Ousmane Sonko wala keneen te leeral aussi que man bokkuma parti ça c'est important bokkuma it beneen parti man politique ma je suis de la société civile te ñun sunu rôle mooy encadrer les libertés publiques encadrer la marche démocratique de notre pays parce que ñun ñuy par parloo ñun bokkuñ ci xëccoowuñ réew xeexuñu ko yore réew mi loolu bu ñu ko leeralee ba pare ñu wax ni lii nga xam ne moo fi am su fekkoonte ne mën nañ koo tuddee flagrant délit ba man koo wooyu Ousmane Sonko ñu andi coow li ñi tiit mooy ñi dem di ko jéem a jëli te mu te am mbaalaanu kiiraayam am immunité parlementaire ñu yónnee ko convocation te amuñ ci droit parce que Ousmane Sonko nekkul en situation de flagrant délit parce que ku ñu tuumaal la ak koo xam ne dafa taxaw ni loolu ñu ma tuumaal c'est un complot bu leer boo xam bu ñu duggee ci débat danañ leeral en quoi c'était un complot ourdi boo xam daa yàqu nag malheureusement parce que complot bi moom yàqu na sénégalais yi seetaan yépp koo ci wax danaan la wax dëgg yàlla mbir mi moom layam layam mënu fee am parce que ñëwuñu fi pour def la procès moral de Ousmane. ça veut dire quoi que àtte nañ ba pour le peuple. peuple bi ci boppam koo fi waxal la. PV d'audition yi maanaam fañ dégloo ñi nga xam ñoo séq mbir mi exception Ousmane Sonko parce que dañoo am mbaraam mbalaanu kiraayam te ñoom ñoo parax paraxi parce que moom bañu la dem contrairement à ce que ce que mon co-débatteur dit. Ousmane ci conférence de presse am. Mm-hmm. bu ñu lever sama immunité parlementaire à dix heures. à 10 h cinq je présent mais ña andi coow li te tey ñu xam ni teesu viol bi moom féete na boor nërmeelu na ñuy jéem a andi beneen coow naan non dafa def appel à l'insurrection te ñoom ñoo fa dem di ko jëlee ci koo xam dafa yore mbalaanu kiraayam dem fekk fa ay militants yu koy sargal ñu dem provoquer leen ba mu andi coow ñu naan moom daa defoon appel euh, à l'insurrection alors que en qu'est-ce que le président Macky Sall avait dit nous allons aller au palais déloger le nous allons marché sur le palais de la République. Dame, alors que kii waxul jëm palais. këram la la këram la wax ay militants la toog oui ça veut quoi que da ngay cautionner tey jii manifestation yi jotoon am fii lundi benn. manifestation yi cautionner wu ko damay damay damay damay dénoncer. avec la dernière énergie. Mhm. ña demoon kër Ousmane Sonko te wutiwuñ fa woon dara. parce que Ousmane Sonko këram la toog jëmul pale ay militants am nañ droit dem seeti ko bés bu nekk waa APR dem seeti Macky Sall. Mhm. donc lool la ay militant def lu tax bu ab bu ay militant APR demee seeti Macky Sall kenn du dem tas ko bu dee loolu rek la woon donc la leen fa yóbbu woon mooy dañoo demoon. Mhm. pour jëli pour jëli euh, ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko malheureusement pour eux ñu dem fekk fa ay militant ñu ni wërta dem parce que dafa am mbalaanu kiiraay mu ne ci moom donc bref su amee ñu tiit ak ñuy rap rap parce que Ousmane Sonko a le droit. Mhm. d'aller voir ses militants. man li ma gis à l'université dafa demoon seeti ay étudiants yu blessé étudiants yi nag comme moom mooy seen leader ñëpp xam nañ ko. Mhm. ñu génn def seen i ful di ko xaar bu fekkee nag da ngaa nekk njiit goo xam ni tey boo doon génn ci mbedd mi kenn lijjantiwu la même boo nekkee président de la république boo doon ci mbedd mi kenn kenn faalewu la kenn lijjantiwu la mais ki nga xam ne bu génnee ci mbedd mi mbedd mi fees Ousmane Sonko bu génnoon ci mbedd mi circulation am ñëpp taxaw naan ko Sonko Sonko mais loolu nag. Mhm. yàlla gis nga taal bu yàlla taal. roof ci matt mu gën a jër-jëri moo gën a am important nga koy jéem a fay parce que boo ko bëggee fay mënoo ko fay xam nga luy dëgg euh, len ay len ay char mhm. mooy li xew nii daanu ba ne lañar lañ def te nanguñ ko di wutil ay lay wutil lay nag taxul nga convaincre sénégalais ak yore làmb ñu rëy fii liy dëgg mooy c'est un c'est un candidat à une élection boom bi mu ci génn ak léegi ñoom ñëpp gis nañ lu mu yëkkati ñu ne ko tegal ci suuf kenn benn parti mënu fee dajale li mu dajale cent vingt cinq millions ci benn quelque euh, euh, benn jour mu ne ay militants ay wa nañ cotiser ku ne cotiser téeméer ñi ñaar téeméer ba mat cent vingt cinq millions parti au pouvoir ak keneen a ci am depuis 1960 aucun parti mhm. ne l'a fait au Sénégal kooku mhm. loolu lañ ko ragale moo tax seen layam-layam jig seen pexe yi ñu def nii te buñ duggee ci biir waxtaan mhm. dinañ leeral pourquoi y a une thèse du complot qui est très claire te ñi bëgg ñu ñu war a fexe ba mu leer leer luñ ko dafa laay daanele sénégalais dañ ni procureur ñoom bi ñuy saisir assemblée nationale dañ ne Ousmane Sonko lañ wax nañ lever euh, immunité parlementaire procureur plainte contre X la def. plainte contre X bu leer naññ mi ngi nii. deful leneen. plainte contre X la def te plainte contre X assemblée bu crédible mais assemblée boo xam si moom président de la république la fi nekkal. Mhm. député yi moom législature yi benn amus ci am njariñ mais bii ci yées. Mhm. député yi ay député Macky Sall lañ. amuñu benn njariñ député yi ca bëri ay analphabète lañ xamuñu lu xew c'est-à-dire que ils n'ont rien compris des enjeux non la majorité bu ñuy wax majorité ba ñuy wax dama boo fa demee da ngay rus man dem naa fa ba ñuy voté le budget du ministère de l'éducation nationale mais keroog dama la desoon rek bu ñu jógee tàcc ministre bi euh, tol seen i gram bu buy rafet euh, ay cuub loolu buñ buñ ca tegoon bu ministre bi waxee bu ko taggee ba pare ministre bi may leen rek mu nuroo ngénte mhm. xam nga lay wax ji mooy man dama ne la assemblée nationale amuñu ko cette assemblée nationale la ne vaut absolument rien. d'accord c'est une assemblée ki est contrôlée par l'exécutif. d'accord alors c'est et, et également au niveau de la justice dafa am lu tey suñu xel ci noonu parax paraxee ba boucler l'enquête préliminaire sénégalais ba nga koy wax. parce que nag waxante nañ waxante dëgg l'enquête préliminaire dañ doon xaar parce que gendarmerie ku leen xam man dégg naa dañu naan dégg naa ñu naan PV yi circulé. du PV yu gendarmerie mais loolu c'est manqué de respect au sénégalais PV yi sénégalais yi yor ci seen téléphone bi dem leeral lépp sénégalais yi xam ne lépp la ne ci dossier bi dara du ci dëgg li nga xam ne moom la nit ñi doon wax mais PV yi leeral na ne viol amul loolu moo leen déranger moo tax ñu commencé naan PV yooyu circulé ci téléphone yi du vrai PV yi ce sont les PV de la gendarmerie